Euh, ku ci mel ni Soleil Levant groupe Jànxeen ñu gis ni euh, benn instant groupe yëpp a tas alors ñi ci nekkoon dañuy génn à chaque instant di di jox defe ay révélation que ni liggéey naag diw xaalis bi ñëw na lekk nañ ko euh, Père Lamine récemment ma fort ci weewu boy que ni ñoom Sanex je dis bien ñoom sànneex dañ leen liggéeyloo ba pare fayuñu la ma ni woon nag loolu du ma ñëw fii ba jóge fi te laajuma la ko parce que ba ñuy commencé yaa ni ma question bu ñëw sa xel boo ma ko laajul boo ñibbee baalu ma la Euh, man maa la wax loolu. Mhm. effectivement parce que aw ma lu may nëbb. Mhm. mais aw ma lu may nëbb du ne lépp laay wax. Mhm. parce que boo waxee lépp am na loo xam ne nii jaru ko sax ñu ciy dugg ci biir. di détail li leen seen xel may def nañ ko en tout cas seqoon nañ liggéey c'est vrai. mais li leen seen xel may def nañ ko mais man maa ngi ciy sant yàlla. di leen ñaanal nag. Mhm. allez-y mais lenn dafa am. Mhm. Euh, liggéey la boo xam ne nii gedduma de. Mhm. du ne suñ ma woowaatee dootuma liggéey ak ñoom. non danaa xam fi may yem parce que dama man suma rapport moo di euh, bu ñu xaritoo dama lay gëm. te ñu bañ a doxal ay maa la gën a muus. ñaata at laa def ci euh, mbir mi. na. su ma comparé seen bopp ak ñoom su ma jéemul am benn élévation boo xam ni danaa mën a muñ lépp lu ñu def te fàtte ko. Mhm. bàyyi leen ko bu leen ko sa seen xel maye. Mhm. parce que dañoo bokk dama nekkoon ci œuvre bu ñu doon liggéey. ñëpp mhm. ràññee ñu ci. fa font. ah dama fa ñëw ngir la ñu yaakaar ci man ñu gis ko ci euh, ñu waxtaan bokk projet bi. et liggéey. kenn ku nekk fayu la ngay fayu mhm. boobu moom dañ ma doon jox li nga xam ni maa ko moom yéeyoo ko mhm. te la ñu waxtaanoon mhm. donc ñu dem ba jëmmi jamono rax ci leneen lu ci bokkul boo xam ne nii moo ñaareel loolu mu doon beneen projet ñu dem yóbbu nañ ma fi sax mbuur ma nekk fa ak ñoom gis nga maa ngi lay wax loo xam ne nii dafa mel ni damay nettali sax loolu. te mhm. bëgguma sax nettali loolu. la mhm. leen seen xel may daal def nañ ko. Mhm. parce que dama yëg ni projet ba génne na xaalis mu am ñu ñëw ne ma euh, séddale nañ ko seen biir ba nu ah alhamdulilah noonu la baax na. Euh, yàlla na leen yàlla yokk yiw jàppale leen bu mais bi nga bi nga yëgee ni projet bi génne na xaalis ñu ñëw wax la ko est-ce que t'as essayé de contacter non non ñu ñoom ñoo ko wax ñoom ñoom ñoom saan <laughs> wallaay du ñoom ñoo ko wax. du ñoom ñoo la ko wax. waaw dama ràññee ni comme takkonte woon. Euh, kóllëre mm-hmm. euh, ñu toog ba nga xam ne su ma jógee di ci woo kenn dootuma ko jot. Mm-hmm. te ñoom dañ ma doon woo di ma jot. Mm-hmm. alors affaire bu jaaxal ma mës naa for ci weewu béy ñu ne ma Saneex mi ngi def émission RTS. dégg nga euh, déwén du RTS. 2STV di laaj ni képp koo xam ne nii yoreel nañ la xaalis. na nga ko wax mais man ba may waxante ñoom waxante wu ñu woon foofu de moom ci boppam moo ñëw daal di ma ne fële aussi am nga fa cachet. Mhm. ma ko ah bon mu ne ma waaw. ma ni mburu foofu ko fariñ. Mhm. te bu génnee je leur ai fait vraiment généraliser ko. Mhm. nga xam ne nii buñ ma wooyee ma ñëw ñu fay taxi bi bu may dellu aussi ñu fay taxi bi loolu moom def nañ ko. vraiment mais bi yëf yi génnee jur dara. vraiment en toute sincérité toog naa xaar. Mhm. dégg rek laa ci am awma ci lu ma wóor. Mhm. vraiment kon du ma téléphoné. Mhm. di ko publier di bokk ci ñooñu di wax naan waaw lii sama lii sama lii wala ñuy jooytu man daal maa ngi sant yàlla. képp koo xam ne nii mën nga ma dugal ci sa projet boo ma fayul sax du ma la wax dara. daan dama moom rek. waaw mais mais attends papa xam nga tey. Euh, dafa am loo xamante ni ñun ay sénégalais lañ. Euh, te dafa am say doom am say euh, mag am say rakk yoo xamante ni ñu ngi ci millier bi. Mm-hmm. ñenn ñi parfois nga gis leen ñu génn ne joué nañoo ak tel tel tel tel projet ba ku ci mel ni ki nga xamante ni moo def ko mandar sa mandar père père laay mm-hmm. moom toog nañ waxtaan. kàddu yi mel nii nga ma wax moom la ma wax ci ñoom Sanex est-ce que tamit jotul ñu xoolaat ñi nga xamante ni ñoom la ñuy àndal pour bu ëllëgee ñu bañ a dugg ci ay erreur. <laughs> naa la wax leen. Uh-huh. man jàppee moo ko erreur. nit ki. Uh-huh. bu leen amal rapport yoo xam ne c'est les rapports sains. Uh-huh. nga xam ni ba mu la soxlaa dafa ñëw gis la waxtaan ak yow nga jóg ci ay yitteem. bu fekkee ni jur na dara ñoom nañ dellu siwaat ñëw waxtaan ak yow. man may naa leen ko ci xol bu sedd guy. billahi wallahi taalaahi bu dul woon li ma laaj question bi. Mhm. du ma ci wax. Mhm. dana ma naqari parce que yaakaarewu ma ko woon ci ñoom. Mhm. parce que liñ ma njëkk woon mbaax yu gore te lépp bu may seetaat ngoonal fii. vraiment damay am mbégte parce que innovation la ñu indi ko ci kii bi dama naan ñii ñi ngi liggéey. parce que loolu lu baax la. moo mhm. moi j'apprécie cette émission la mhm. vraiment xaw ma yan xalaat lañ ci indi euh, mais je je je en tout cas leur euh, travail à travers cette émission là. Mhm. bon leneen li ci des nag euh, baal naa leen ko ci xol bu sedd gi. buñ ci am benn njàqare. waaw parce que. jooyu ma ko yow gis nga. Mhm. sama kër. Mhm, macha allah donc projet may am bu doon yem Sénégal ñu mën a wax. Mhm. mais daf may génn ba bitim réew. man nag nekkuma koo xam ne damay tàll tàlli bu ñu wax maa ngi dem France maa ngi dem Italie maa ngi dem lii maa ngi dem lala. da lay kii dama jàng ci nasaraan mu ne. méfiez-vous de l'œil et la langue. car plus l'œil admire plus la langue flatte et vante et plus le bonheur se fait vulnérable à le et s'affaiblit. moytu leen ak làmmiñ mm-hmm. gët c'est le pluriel de bët mm-hmm. ndax lu bët ne toq mm-hmm. làmmiñ dana ko tudd ba boo moytuwul mu laatukaan dëgg la kon nag comme loolu ni ma ko jàngee ci français noonu laa ko mën a tekkee ci wolof lu ma duy la xam la te cat baaxul baaxul ñiy wut buzz man wutuma buzz yàlla ma yàlla mësal ci buzz ñi bëgg a te ba mën yenu buzz man sam bopp attanul buzz <laughs> nañ ma <laughs> non loo ko <laughs> nett yaagiree mais très sincèrement mhm. loolu indiwuma ci métier bi mhm. parce que ba may door mhm. xalaatuma woon ay buzz ak yooyu ok très sincèrement dama ne métier la naa ko jàng xam ko ba mën ci jëriñu comme moom laa bëgg parce que man j'étais secrétaire et représentant commercial d'une boîte boo xam ne nii jamono ji kenn xamu ko Annovona la tuddoon. Mhm. donc ñun publicité leen doon def. nous avions créé un journal boo bu tuddoon PAC. les petites annonces du cap mhm. waaw donc liggéey naa xam naa fa tekk ay nit ñu doon ay kilifa actuellement ku ma ci taxaw tey wala nga romb ci mbedd mi gis ma di nga fàttali ko lool. Mhm. donc ñoom ñëpp cër lañ ma joxoon. cër bi nag xam naa lu tax ñu jox ma ko parce que man. damay seq ak yow wan la yar duma la dépassé du ma yéeg ci sa kaw du la woon ni maa la mën. Mhm. même ci liggéey beeg yooyu. moi je préfère ñu toog mbokk benn projet. mais su fekkee ni ñoo ngi waxtaan ñu dugal yoo xam ne nii day yokk connaissance bi. Mhm. yokk projet bi. Mhm. du ma ko ñaanee ndaw bi nga xam ne mi ngi soog a door waxatuma laa koo xam ne yàgg na ci métier bi parce que dañuy weccoo échanger. bon soo ma ëppee dayoo nag ma gëm ni loolu am na mais damay duyu ci yow. duma fa nekk daan naan waaw kii dafay jaay lu amul loo may kii man bari na ci ñoo xam ni seq nag ñoom kii ñu naan waaw dafay jaay lu amul lan lañu gis ci ba naan damay jaay lu amul dañ ma bàyyeeg suñu borom. Mhm. moo ma mooñ nii ma mel. Mhm. man waxuluma leen dara. Mhm. billaahi wallaahi taala taluma nit ñi. affaire nit kii laa toog. parce que nag am na lu ñuy wax nit ki ak lu ñuy wax nit ñi. nit ñi donc fësal leen du doon njëriñ ci man. Mhm. ma topp tàll tàlli fu nekk ma dem fa mënoon naa ko. Mhm. parce que comme ni ngeen fi ñëwee. Mhm. Euh, ñu jot ci waxtaan. Euh, may wër ci kii waaw ci réseaux sociaux yi waaw ñoom lii ñoom lii danaa dugg foo xam ne nii xëy na sax du sikk boo xam ne rafet na ci sama diggante ak ñoom. Mm-hmm. donc maa ngi wax affaire yi sama rangoñ di génn. parce que tout simplement habitué wu ma ko. Mm-hmm. nit kuy def yooyu dama lay yërëm. Mm-hmm. dama naan kii day xëy na jikko bi ma am am ko. te peut-être ñàkk doylu mën na la yóbbu sax ngay triande ay nit. wala di kii mag mu toll ni man. seq ak yow liggéey. Euh, nga doxalee noonu euh, rafetul. Mhm. Euh, mais boo bu ñu gisee actuellement scène yu obsèques yi wala yenn scènes yi nga xamante ni sénégalais dañ koy ñaawlu par rapport ak mag ñi nga xamante ni ñooy seetaan yenn série ak gone yi ñu gis ni des fois dina am bon gars yi koy wax des fois dina am caractère pornographie en tant que doyen nga nga nga yàgg ci milieu bi est-ce que ni ko sénégalais di méttiloo yow noonu nga koy méttiloo. bu baax parce que. nit ki boo wàccee sa culture. Mhm. jéggaani leneen loo xam ne bokkul ci yow dangay ngay fës feeñ. Mhm. ñun ba ñuy door daanaka bi télévision ubbee bay doxal ba xalaat ni théâtre yokkute la ci réew. Mhm. commencé di di def kii boobu temps jamono te moo fi nekkoon. jamonoy tey am scission daaray Kocc soog a juddu. Mhm. donc ñoom ñaar ñoo fi nekkoon bu kii defee. kay def mhm. ñuy awante mardi yi. Mhm. man fekk na ma boobu lu jiitu loolu def naa musique set ans laa ko def. benn orchestre bu ñu tuddee woon xawaare fii ci kër gi la nekkee. juddoowu fi. mais dañ daan amul dañu amul woon fu ñuy répété. may leen ñëw leen sama kër. ñuy répété fii pendant trois ans. loolu may na ma sax encore ci ma mën na jouer guitare. di woy en même temps mhm. euh, comme Ismaïla Lo ko mhm. donc euh, loolu yëpp ma wees trois ans yooyu ba ma demee nekk DJ au niveau de Taboubar mhm. donc ma nekk fa DJ euh, remplacer kenn ku ñuy wax xaw ma sekk ci la xaw ma daal mais ku baax la woon parce que dama daan ñëw presque ci fi mu kii yoon box bi ñu ko kii loon foofu laa doon toog ñuy bokk di waxtaan ba mu guddi man comme daawuma woon nelaw ma ñibbi suma kër ñëw daal di tëdd mhm. euh, loolu def ma am chance Sëru Ba ñëw fa mhm. ku ñuy wax tumaane Camara mu yore woon foofu doon ko gere donc moo ko moomoon euh, il m'aimait très bien et souvent da doon discuter ak man mhm. bon man aussi Sëru Ba ñëw fa euh, ñu toog fa ak ñoom Cheikh Kanté ñoom Vito Mbengue ñoom fay Faye ñoom Lay Silla ñoom ñëpp cette vague là vraiment ñu ba ñu fa ñëwee dañ ma yaatal ñoom it seen biir ñu jóge Louga. Hmm. ah man ma nekk fii doon dem Louga te xaw ma leen woon. Hmm. ñu doon ma expliquer boobu jamono ñoom fan la ñu nekkoon ak yooyu mais mosuma woon dem sax foofu. Hmm.